libération xëy du ñu Y professeur bu lycée Barkédji ma ñu teg loxo ndax mbirum terrorisme Yene a cabinet wadja Abdoulaye Diop Fall lay wuyo lu tollu ci ñetti weer a ngi koy cabinet mom Abdoulaye Diop Fall momulé ma nga Koto ak Abu Mustapha. Don kenn ci agent des services secrets bu sadam Hussein mañu mbirum terrorisme. libération passons-y avec euh, l'affaire du professeur au lycée de barkeji arrêté pour terrorisme présumé sur les traces d'Abdoulaye Diop Fall livre le journal depuis trois mois il était filé par la section de recherche. mbaa yéen a nga ca Alpha Condé mi ñu tëbal ci bopp réewum Guinée yëglekaay yépp ci la ñu dikk ni ki tey ji libération ne Alpha Condé daanu na looloob sob réew ma ca pëccaxoo rajaxoo gu tar ni ki démb te comité national de rassemblement du développement lañ fa samp ba tax ñu waru tey ji ñëpp ñi nga xam ne ay ministre lañu ak président institution ni ki tey ji ci palais ba lieutenant colonel Mamadou Doumbouya moo daaneel nguurub Alpha Condé mooy doxal ci bopp réew ma de libération ne nguurub Alpha Condé jeex na tàkk di jullit tubaab